bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin walaqibatu lilmuttaqin walsalaatu walsalaamu ala alhaadi alamin sayidina wa mawlana muhammadin almakin wa ala alihi wa sahbihi zawi ridwani wa tamkin wa radiallahu taala an alabdi alxadim zi lfulki almasxun almaxsuusi bichir almasun ren yashmalu dawihi min al aali wal ahibati ajmain asxaaba samaha al ulama wal mashayikh mumathili al qiyadati ruuxiyati fi lbilad asxaaba siyaada mumathili al xukumati sénégaliya wazira daaxiliya wal wafd al murafiqa lah asxaaba saada asufara wa ahda as-silki diplomaasi al-mu'tamadin fi Sénégal asxaab as-siyaada mumathili al-ahsaab as-siyaasiya wa tajammu'aat al-mujtama' al-madani asxaab al-fadila masaayix al-muridiya wa qiyaadatiha asxaab al-uxuwa al-muridin wal-muridaat ayyuha al-xaflu al-karim assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu wa baadu fa yusaiduni an uwajjiha ilaykum hadihi alkalima bismi cheikh sidil muxtar alxalifati alaamil almuridiya xafidahu llahu taala wa raa wa nasarahu wa zaada min tamkinihi wa tayidihi بمناسبة اختتام فعاليات المادة لهذا العام 1436 وقد لبيتم مشكورين wa maajurin inchaa allahu daawat alxalifati lilxuduri walmusharakati fi ixyaai zikr alxayba albahriya lilqaaidi almujaddid faxri alumma waddin walwatan mawlana alabdi alxadim ahmad bni muhammad bni habibillah allazi kaana qad daa qad amara wa daa ila hadihi shikra shukran lillahi taala على ما أشبع عليه من نعمه الظاهرة والباطنة التي تالت العباد والبلاد وانتفعت بها الحياة والأحياء وإن للشكر أيها الحفل الكريم موقعا عظيما في الإسلام لأنه أمر إلهي حض عباده إليه ورغبهم في شأنه ووعد فيه وأوعد فهو من مقامات اليقين عند الصالحين wala yaqdiru alayhi illa almuwafaquun qaala taala wala tajidu aktharahum shakirin wa qaala jalla min qaa'ilin wa qalilun min ibaadiya ash-shakuur falakum min alxalifati jasiiru sukri wal imtinaan ala haasa alxuduuri almushaarakati alijaabiyya wa jasaakum allahu xayran wa waffaqakum limaa yuhibbu wa yardaa assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu nawaytu shukraka fi zal yawmi ya shamadi yallaahu zal xam qabla raai wa chini ci ndigalam kilifa gu tedd gi Sëriñ Tuubaa Cheikh Sidi Muxtaar mi nga xam ne moo fi toog jataayu Cheikh Xadim yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér la ñuy dikkee di leen jotle kàddu yu bàyyi ko ci moom kon ni ko jëwriñam ji jëwriñam ji tedd ji wax di Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké ibnu Cheikh Mouhamadou Bachir nga xam ne mboolem lu ci motoon wax wax na ko lépp mboolem lu dug soññ ak i digle ak i tere wax na lépp kon nag li ñu ci dolli mooy leeral màggal gi nga xam ne Sëriñ Tuubaa da koo jagleel subhaanahu wa ngir sant ko ci ndam lu rëy li mu ko defal ci liggéey bi mu doon liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa kàddu yi nag la ci jiitu mooy ñu mu seqal diine lislaam ci àdduna sëpp rawat na ñu bokkal senegal rawatina ñu mu sañ a digal sañ la tere te mooy ñu mu bokkal yoonu murit li jiitu ci kàddu yi nag moo di cant goo xam ne sëriñ bi naa mu ngi leen koy sant yéen mboolem kilifa yi fi teewal këri diine yi te ñu bokk moom ndorali ak mboolem mbooloo yi wuyu ci turu lislaam ñëpp délégation yi bàyyi ko ci biir réew mi ak yi bàyyi ko bitim réew ndax nee yéen dafa yàlla suñu borom waxee ne innamal mu'minuuna ixwatun fa aslihu bayna axawaykum te mooy xamaloon ñu jullit yépp ni jullit daal mbokkum dëgg mooy ki mu bokkal diine lislaam mu ngi seedeel ñépp ni dundal ngeen bokk googu lislaam santaane seen digga njabootu Sëriñ Tuubaa ci ni mu gën a rafete nee na yàlla na yàlla fay leen gën ci pay te musal ñu ci li mu bokk ak li mu boole ba seetaane bañ ci am yoon kon ni mu ko waxale bootam waxale boppam bi mu woote màggal gi ginnaaw loolu nag yenn délégation yi fi teewal njiital réew président Macky Sall ci njiital ministre de l'intérieur Abdoulaye Daouda Diallo ak mboolem ministère yi nga àndal yëpp ak mboolem chef de service yëpp ak mboolem délégation yi fi teewal mboolem banqaas yi fond réew mi yëpp sëriñ bi noonu mu ngi leen di sant di yóbbante ay cant ki ngërëm ci président de la République ci taxawaay bu mat sëkk bi mu taxaw ak mboolem ay jëriñoom ci màggal gi. ba dañoo sàkk woon ci ñoom ci lu jëm ci màggal gi ñu amee ko nañu ko bëgg woon nee na mi ngi koy ñaanal suñu borom jàppale ko doole ko kàttan ak man-man ba mu a àggale mboolem lu mu yéene ci réew mi ci lu baax yéen ambassadeur ak mboolem membre corps diplomatique yi fi teewal seeni réew sëriñ bi nee na ngi leen nuyu te leen sant ci seenu teewaay ak ci seen taxawaay ci lépp luy sàmm ak rafetal diggante Sénégal ak réew yi ngeen fi toogal. yéen ñi fi teewal parti politique yi newul ci biir nguur gi ak ñi fi teewal mboolem mbooloo yi taxaw askan wi sëriñ bi noonu mi ngi leen sant ci seen jëf ci magal gi ak ci seenu teewaay yéen mboolem presse ak média yi fi teew yëpp sëriñ bi noonu mi ngi leen sant ci seen liggéey ci magal gi. di sant di gërëm bu baax nag bokki taalibe yi nga xam ni ñoo wuy si ndigalu Sëriñ Tuubaa bi mu joxe woon ci bis bii mu doon dundal biig muy fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar mu sàkk woon ñu ko ci sant yàlla ci xéewal yu rëy yi koy dikkal te sabab woon ci tukkib géej gi tàmbaloon ci bis bii doon natt boo xam ne ay xéewal rekk la ko jural kam min ni'matin fii tey niqma sant nag mbir mu màggale ci diine lu rëy dafa sunu boroom moo tax mu digle ko xelloon loo ko jàmm digg ci tëkkoo ci mu ngi bokk ci maxamaatul yaqin yi nga xam ne ci la gaa yu baax daan yéegi bàgg ci seen borom yàlla bëgg lool ñu koy def di mere ñu ko du def nee na sant leen na te bu leen goree te bu leen goree di washkuru di wala ngeen di jaamu yàlla sant xéwala bi balillaahi fa'budu wa kunu mina shaakiriin kon sant. ku sant moo ca jariñu waaye ku wedd moo ca loroo wa man yashkur fa innama yashkuru nafsihi wa man kafara fa inna allaha ganiyyun hamid bu ngeen bu ngeen bu ngeen santee ma dolli leen waaye bu ngeen gàntoo mu ngi leen liggéey ak i mbugalam la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna asabi la sadid sant nag ci ñett la ñu koy defee mooy xol ak làmmiñ ak cër yi Sëriñ Tuubaa nee لدى من علم شهودنا من ذي الجلال النعمة وعمل بها لسارا وجلا في كل ما يرضى وركنا يشتبا Sëriñ Tuuba nag matal na xeeti cant yooy yëpp te bisam bii làmboo na mboolem cant bi mooy cant xol gi te mooy xam ne wa maa bikum min ni'matin fa minallah ak cantu làmmiñ gi te mooy wa ammaa bi ni'mati fa hadis ak cantu cër yi te mooy ya'malu aala Daawuda shukran kon yéen ñu ngi si ànd ak noonu di ko santale yàlla yàlla na yàlla boole defal yoolu cant te fay na ndax nee na ku sant ma fay ko te moom lu mu wax def ko wa sayajzillaahu shaakiriin te nee na xam ne na ñuy sant yàlla ñu ci bokk alaysa llaahu bi a'lamu bi shaakiriin yàlla na dugg ci biir waxam ji moo xool yonent yàlla Moussa alayhi salaam te taw fii xam ne ba nu matal sart yee te mooy inni si ala nnaasi bi risalati wa bi kalaami fa xus ma aataytuka wa kun mina shakirin ginnaaw loolu nag sëriñ bi mi ngi dellu ak noonu ci kàddu fàttali ak soññ yi mu baaxoo yëkkati jotaay bi di ci jëtal ci sàkk gu ñu sàkk ci ñun ñëpp mu delluwaat ci yàlla tuubal ko aartu nanu xamal nu ci biir alxuraan lépp loola dal ci ay jafe-jafe wala ay balaa ak i musiba yu wàcc ci sunu kaw nanu xam ne la ko sabab ñoo ko def wa ma asaabakum min bi ma kasabat aydikum wa yaafu an kasirin dellu xamalaa bu ne na xeetu njubadi yoo xam ne du ko xaaree ëllëg waaye fii ci àdduna laa leen di tàmbalee wan li mu leen mën a joona ak su ngeen ca delloo la ma leen mën a andil ëllëg zahara al fasaadu fi lbarri wal bahri bima kasabat aydi nnaas li yusiqahum bahra lisi amilu la'allahum yarji'un mu dellu digalaat ñu muy moytoo def walla ñu wax lépp lu mën a indi fitna walla muy seetaan ko koy def te na loolu lu nu mën ngir aaye ko loolu ndax fitna kat bu yegsee du yem ci ka def la ko waral wattaqu fitnatan laa tusibanna allazina zalamu minkum xaasatan waalamu anna allaha sabiilul iqraab lii lépp nag tax na sëriñ bi wax ne bu ñu bëggee saafara jafe-jafe réew mi naataange ak xéewal baawaan yu bari baawaan ci biir askan wi faaw nu maase ànd def li yàlla wax ne saa yu nu ko defee mu wàcc yërmandeem ak xéewal ci suñu biir te moo di dellu ci moom tuubatu tuubal ko tuub gu sell wa istaghfiru rabbakum summa tuubu ma yumatti'kum mataahan hasanan wa yu'ti kulla si fadlin fadlahu wa yaa qawmi istaghfiru rabbakum summa tuubu ilayhi yursilu samaa wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum li dëggal ak tuub ak di ko firndeel nag Serigne Touba leeral na ko ci ay barab yu bari te la ci jiitu ci ki war a tuub mooy tuub tuub njuumte ak càggante ga def ba la war loon def ñu def ko wala ñu bàyyi la ñu waroon def ñu rëcc ko daal di ko bàyyi fa saasa ba ca topp ñu am yéene ju ànd ak dogu ci dootuñu ca delluwaat li fi ñu ko dund wa an yatuuba kulla xiinin mu'tarif bi zambihi li rabbihi min qabli an yakuna shaaxitan alayhi bi saman wa min shurutiha nadaamatun ala ma faatahu min almaasi musjala wa niyatun an laa yacuuda li zunub muddata cumrihi li xawfi alqarib wa an yakuna taarika alcasyaani in kaana caasiyan bila tuwaani sëriñ bi nag wax na ne li jiisu li jiitu ci liis war a bàyyi bàyyi loo koy ñu ko def moo di poro bari mi ak caaxaan yi ndax nañ ko nañ ne lu ëpp léegi ci ndaw réew mi ak lu ba lu ëpp lu gën a bari ci mag mi la ñu jiital ci seen programme bis bu ne mooy lu jëm ci fo ak caaxaan te Sëriñ waxoon na ne rek fi nekk li mat def ak li matula def ak li ëpp mu ne li mat a def mooy jaamu yàlla ndax moo ne mooy ajjan li mu sol ci sawara li matula def nag mooy fo ndax du la may dara du la musal ci dara li ëpp def nag moom bu sa xel sa xalaat mooy def la naqar yàlla moo tax ci njëlbéen ab liggéeyam lan la xamal ne képp ku nekk ci diine lislaam war ngaa moytu foo ak ndax diine ji loolu taxu ko jub ba tax na ku ci dugal am po wala nga jiw sa sa dund di ko jeexal ci puukare yàlla daan la rëbb daan la génn ci kuréelu jullit yi waalam bi anna diina inda islaamuna laa diina zil malaahi sëriñ bi wax na ne nanu xam ne am réew kenn du ko tabax ci ay caaxaan akum po waaye ci xam-xam bu ànd ak liggéey tey jubal lees koy tabaxee moo tax sëriñ Tuubaa wax ne ku bëgg teraangay àdduna ak àjjana ëllëg na boole jaamu yàlla ak liggéey te lépp lu ñu def ñu jiital ci xam-xam ak xàmmee al ilmu wal amalu li xayri daareen yajlubaani wa alam bi anna ilman wa amal huma wasilata saadati ajal nee na ndaw ñi toll ci jàng waree su leen a xiirtal wala def leen xemmam la lu jàng ak lu leen mooy ak njub yaa ayuha sibyaanu laa tastaxilu an il odaaw wax na ne li gën a mën ak gàllankoor ab société mooy ay mu kàllaf yu dund ci seen biir nawle te amuñu métier. te it amul benn yëngatu bu ñu def bu leen maanaam teraanga ak sutura waaye dañoo toog yàccaara ba lu ñu am seen nattangoo yuy liggéey ñoo leen koy jox amal bi taalatu wa tadyiul umr min gayri ma yaani fadaauhu yadur wa talabul xalaali fardun yantani li kulli muslimin bi xayri wax bi li jiit nag ci li si war a jiital ci tuub gi mu santaane moo di taxaw temm yaraat bakkan yi defaraat jikko yi ngir xam ne kiris bi jiitu ci kiris yi mën a jur yeneen kiris yu bari moo di jikko yàqu yi bokk na nag ci màndarga yàqute jikko yi Sëriñ baax xam le ci biir ay mbindam kañaan ak soxar gu tasaaroo ci biiru askan ba lu waaye am ci lu baax wala mu man ko mbooloo taxaw temm di def lu ñu man ngir yàq ngir xañ ko ay yàqal ko donte lu baax rekk la ci jublu qaalul xasuudu laa yasuudu jiila wa kay fadaawahu fi zamani yuridu salba niqmatal ixwaani Sëriñ wax na ne képp ku melokaane añaan nekk ci moom balaa muy bëgg wala xolam wala xolam di sedd dafa faagaagal ilime ne képp ku ko jiitu ci kanamam wala mu am lu mu amul wala yasurruhu madal azmani nag yaatu na lool ci suñu jamono jii ba tax na sëriñ baa ngi sàkk ci ñun ñëpp ñu yéenante lu baax tey suturaalante tey sàmmoonteeg ndénkaanul sunu borom bi mu wax ne ijtanibu kathira min azanni inna baada sanni ismun wala tajassasu wala yaxtab baadukum baadan te loolu mooy muy rafetal suñu njort ci képp koo mara doon te nag mooy tuut lu ñutu ak gëstu mbooti jàmbur ngir siiwal ko ak tasaare ko bokk na ci màndarga jikko yàqu yi mooy li gën a bari ci nit ñi moo di dégg ab safaan ci nit moo leen gën a dégg lu baax ci moom moo tax lu ñu siiwal ci musiba la ñuy ci luy jëme nit ñi kanam wala lu leen di amal te suñu borom dañoo digal bu ñuy wax ak nit ñi ñu wax ak ñoom wax ju tey wax ju rafet wa qawlu linnaasi xusnan te loolu moo di xabaar bu ngeen di jottali na doon lu rafet mu waxaat ne in jaakum faasiqun bi nabain fa tabayyanu an tusibu qawman bi jahalatin fa a ala ma fa'altum nadimin te mooy te mooy waxtu woo xamee ne nit koo xam ne yàq rek ko ko tax a jóg indi na xabaar bu rëy ngeen ko vérifier bu baax ba am ci lu wér laata ngeen cee def wala ngeen cee wax lu ngeen di ci ëllëg sallallahu alayhi wa sallam teg ca ne ku gën yàlla gëm yoomal xiyaamati fu mu nekk na wax ak siiwal lu baax tey maandu ak téewal am ñoom sëriñ bi wax na ne taxawaay yi yëpp nag te mu aju defaraat jikko yi boroom kër yi am nañ seen warugar ci di sàmm njaboot yi bala ñuy yend wala ñu di ko fanaane bañ leen ëmp te lu ci jaarul yoon ñuy juddanti ko naka noonu kilifa yi mbooloo topp ci seen ginnaaw ñu teg leen ci yoon am nañ responsabilité bu mag ci melokaanam taalibe yi leen topp ba tax na waruñoo noppi ñoom it ci di delloo nit ñi ci yàlla war na nañoo taxawit ngir aar diine ji ci lépp lu koy tilimal ñu yor ngóor gi nañu xam ne ne am na nañu responsabilité bu mag ci loolu sëriñ bi nee na mu ngi fàttali nguur gi ñu dell ñu dolli seen dimbal ci baykat yi ak mboolem yi ko nuru ci ñi liggéey jafe-jafe yi am ci njàngum ndaw nit nañu fexe ba tabaxaat anamu jàng ak jàngale ci biir réew mi tey sàkku na ñu jiital ci anam yi sunu kilifa diine yi doon jàngale ba ko ñu mas a noppi ci yow danga defaru amub yar ami teggin te lu ñëw dénkit doo ko yàq doo ca defum jubadi waaye ñu xam ne ñi tànn defar seen ndëw réer di seen di seen mécce lu leen su lu sunu borom sant na fa lawlaa nafara min kulli firqatin minhum taifatun li yatafaqahu fi diini wa li yunziru qawmahum izaa rajahuu ilayhim laallahum yaxsabun te loolu moo di société bu nekk war na caa am mu bàyyi lépp te dem sàkku ji xam-xam waaye bu ñu dellusee war nañoo taxaw seen xeet ci jàngal leen ak gind leen te ngeen xam ne ndaw ñu seenu njaboot lañ kenn wër leen jiitu jiitu ci taxaw leen ba bu ëllëgee ñu mën leen wutu fi ngeen nekk yan ndaw ñi nag sëriñ bi naan mi ngi leen di fàttali ñaari bay ci biir ndenkaanam Sëriñ Tuubaa dénk bépp ndaw bu tollu ci jàng kun kaatiman li durri wal buusaatanal qasdan wa taxulul jiila yaa mutaallimu te lu maat yow ne sàkku xam-xam na nga xam ne noonu tolluwaay la boo xam ne faaw mu ànd ko tumuranke ak ay jafe-jafe ba tax na ku bëgg ña nga nekkal nga bokk ci ñi ci gën a ràññiku na nga gànnaay yooyu muñ te ngay nëbb mboolem jafe-jafe yi ngay dajal ci biirum njàng bi laa tukthiri sakwa fakun mutajallidan xataa tazunna annaasa annaka mun'amun boo demee bu bu mënoon ñàkk jàmbatit bul ko di bari te ngay supporté jafe-jafe yi boo ku ne seen day jeexaloo dara ginnaaw li lépp nag sëriñ bi nee na mu ngi dellu si di soñ njabootu boppam gi ngir ñu gën a farlu ci jaamu yàlla ak njub ak jubal ci lépp lu ci lépp lu nekk farlu itam ci liggéey te di ko sellal te lu ñu am ca liggéey ba ñu génne ci àq yàlla ja te nooy moytu yàq ak def yu du farata rawatina lu jëm ci puukare te nu boole sunu bopp mu nekk benn ndax mbooloo mu ne sunu borom def na maa dem ci biir moo tax sunu borom di wax ne wa taawanu alal birri wa taqwa nee na it ñu ngi fedd li tere yi ci dëkk bi ñëpp maase bañ fàtte li tax Serigne Touba sanc ko kon ñu gën a bàyyi xel dëkkub Serigne Touba bi war ma dëkkub Serigne Touba bi war a des dëkkub diine ak jikko yu rafet ak dimbalante ci lu baax. ak ci ragal yàlla di dëkku kóolute ak jàmm ni ko borom ñaari woon suñu borom wax ne wachaal xarimana ariman amina wukun bi xefsihi kafina damina ci loolu mi ngi fàttali kilifa yi ne kenn ku nekk fa mu féete ci biir dëkk bi moo ko fa nekk loolu faa taxaw taxawaayam ci lu ñu war a digle ak lu ñu war a tere naka noonu ñu jiite quartier yi ci dëkk bi mu ngi leen di soññ ñu saytu barab yi ñu féete te lu ñu fa gis ci lu jaadoolu ñu jottali ko së ñu sëriñ bi dénk war may dëkk bi ñëpp yeew seen bopp ci buumu man raa minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi wa in lam yastati' fa bi lisaanihi wa in lam yastati' fa bi qalbihi wa zalika ad'aful iman lépp loo xam ne nag Sëriñ Tuubaa gërëmu ko ci taalibe yi ak ci biir dëkkam bi na ñu xam ne ci munkar yi la bokk te lépp lu bokk ci munkar loolu suñu ko bañ wa maa abaahu yaa baahu kon lépp lu ñu fi tere na ko ñépp bàyyi xel ndax lu yàlla bañ la te yàlla loo bañ kenn du ci jëli njëriñ nee na kon nanu moytu lépp lu nu mën a xàjjale te nuy dimbalante ak suturaalante te warmaalante te kilifa gu nekk nañ la warmaal jox la lay sëb cër ànd ca la yàlla def jiital la nee na ñaan it ngi sant bu baax kilifa yoon yëpp ci toppeel war a fi yi ngeen ko topp yi jabaru Sëriñ Tuubaa bi ànd ak moom ci seen jëf ci lépp lu mu sumb ngir liggéeyal ko Sëriñ tubaa ba tax na fa lillaahi alhamdu liggéey yi mu sumb yépp mooy liggéey bii ci mag bii ci tubaa ak liggéey bu mag bee ci Ndakaaru ak naal yu mu jox ndigal Cheikh Mouhamadou Mountakha léegi mooy université Sëriñ tubaa bi ba tax mi ngi leen ci sant bu baax kon nag sëriñ bi nee na la lanu may loola moo di am jom ak nangoo liggéey ak bañ a toog di xaar ndimbalu kenn ko dul yàlla ak gëm la liggéeyal Sëriñ Tuubaa moo gën ci loolu dul moom ndax moo gën a gaaw ci may nu teraangay àdduna ak tax ak alaaxira ma jeexale ko nag ci wax tuuti ci ki nga xam ne ma waral bisu màgg bii di suñu yaakaar te àdduna mu di Sëriñ Tuubaa kon ne xam na ne liggéey bi nga xam ne moom la doon liggéey rasulullahi sallallahu alayhi wa mbir a ko waral ginnaaw bu ko rasulullahi sallallahu alayhi tànnale boppam kon ni mu ko waxee ne raama rasulullahi min ilahi kaw nii xadimahu abdullahi bu njëkk bi moo di dogu bu sëriñ bi dogu ci jënd wàccuwaay wax kawe yoo xam ne suñu borom yàgg na ko jaay gaa baax yi te mu lamb ndax li mu àndal ci tiis ak i nattu ak i tartar waaye pastéefam aku dogam aku fitam aku njàmbaaram ak jeex bu mu jeex ci yàlla ak yonente bi ak bëgg xeetu doomu aadama yi ak diine ji moo waral mu deenante yàlla jaayante ak moom ci yàlla yoon boobu ak dékku tiis yi mu àndale ngir mu matale mboolem lu mu bëgg woon doomu aadama yi bu ñaareel moo de ginnaaw bi mu jëndee wàccuwaayu kaw woowu ba yàlla nangul ko ko fayee ko lu kaw njortam daa daa ñaan borom mu defal ko ko lépp ay xéwal ak yërmande ak teraanga boole ko doomu aadama yi tey ak ëllëg ginnaaw bu ko yàlla nangalee ab liggéeyam ba noppi daa jàkkaarloog moom tànnal ko ay loxo wax ko ne lii aw si li la si uridu wan faxi bi yàlla war a yaa moo xam ne yoon am nit faxi ci al masir yesa jaw fal farajin a loolu kon mooy histoire bisu màgg bi ñu màgg tey ñu sant ak delloo yàlla njukkal ngir li ci aju lépp ci xéewal ak i may ak i ndam sëriñ bi nag képp kuy wax ci moom. mënoo weesu lenn ci li mu jëf mu gis ku ne teg ci bëtam ak li mu wax mu dégg ak li mu bind bàyyi fi lii aju ci mayam ak wàccuwaayam ci yàlla ak rasulullah loolu xelam doomu aadama ak xam-xamu téere yi ak njàngu réew mënu koo lijjanti ku ñu wax Cheikh Abou Madiane Ahmadou Souleymane toontoon na borom xam-xam yi daa natt mbirum Sëriñ Tuubaa ci xel mu wax ne ayal wara fahmu ma li cheikh min madadin law kaana yufhamu maanaahu fahimnaahu loolu moo di mbirum Sëriñ Tuubaa su doon lu nu mën a xam ci téere wala cim xel kon loolu lu xam ko bu yàgg na waa gànnaar waaye mbiram day loo xam ne bindee fi lottu nañ ci xam ko te loolu Sëriñ Tuubaa waxal ko boppam xaaba maqaami an siwal baaxil xadim wa inna ni abdun xadimu laa yarim mu ne ku du yàlla suñ borom kon li nu ma mën a xam ci moom moo dina jaaw yàlla la bu liggéey rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ay mbindam yu fi bàyyi itam kawe na tabari bari goo xam ne mënu ko natt ci genn fànn goo ci jël rek te mooy al matxu wa thanaau wa salaatu wa shukru waaye itam ci xalaatam ci nu société doomu aadama war a doxe ci kaw suuf ba bi muy tabax ak société dafa bàyyi xel ci li weesu lépp ak li ak séegul ngir li muy tabax du màggat mukk te du ràpp bay màbboo mu woo ci àdduna bépp fu ñu mën a féete ci mbooleem continent yi fii ka unaadi kullal bilaadi li zil ibaadi baanal ximaayi laakin unaadi kullal ibaadi ila ibaadi bila jalaayi yaa ahla barri yaa ahla bahri rojo li barri bahri saqaayi bi mu wootee nag ci atum assasine dëpp 1884 daa wax ne na ñëpp dikk ànd ak moom wuutal yàlla te bëggatee bëgg lenn lu moom mu indi loo xam ne dana defaraat li yàqu ci mboolem histoire doomu aadama dana ko ci aadama ba ci rasulullahi alayhi wa salaam li fi jaaroon te doomu aadama wëlbati ko mu ñaan sunu borom mu ubbil ko bunt yooyu waftax lana kulla baabin kunta fatixahu lisaalihina min alxayraati yàllaw loolu la delluwaate ci jamono ñu baax ñi ñu ko jiitoon ngir sunu borom ubbil ko mboolem bunt bi ku baax jaaroon ngir xett li seenu xet ci atum jëwse si nag ci la wëlbati ku bàyyi lépp soobu mission bi ku yàlla rëddal ñe ko Cheikh Mahmoud Bachir leer la ci ay bindam inna taxalluban kabiran fii tajdiidi diini wa zuhuura tariqatun azimatun fi lislaax lam yasbiq laha mathilun fi quturiha te loolu moo di soppiku am na ci mbirum yeesalaat diine ak méthode bu yees ci loolu war a réformer ab société boo xam ne ma suufu ko gis ci sowu jant loolu moo di sëriñ bi daa def li ñuy tuddee xatiyaatu mooy bàyyi aada indi xarxul aada moo tax mu mu bàyyi doxalee ñi ko jiitoon ngir ba di mën a am li ngeen di wax alternative ngir mu dëppoog mission bi ko suñu borom digal moo tax mu gën a wóor gën a gaaw moo tax mu wax suñu borom defal ko ci léppam at tayyu wal jës bu moo waral ba mu jugee dafa bàyyi méthode yëpp ak seeni système jël système yàlla ak méthode rasulullahi def ko muy delluwaayam mu gis ne adduna ngir mu jag faaw doomu adama jag te doomu aadama ngir mu mën a jag faaw mu sukkandiku ci système yàlla ndax moom rek moo mat matale te furul na kenn ku du doomu aadama man sarrahu al fawzu fi daarayni bi anam falaa yufaariqu kitaaban minhu alana xawa nizaam allasi lam yati man salafu bi mislihi xayra ilmin birida qurida mu gis ne ngir doomu aadama mat faaw mu yeesaan kóllëre gi mu daalentoon démb ak ci alastu bi rabbikum qaaluu balaa te ñu dëggal woo gi nit wuti yàlla ci kaw suuf te mooy nu saytul ko adduna bi teg ko ci kaw luwaay yi mu nurdal yi nga xam ne suñu ci jaaree daanu mën a saytu adduna ba kenn du fi yàq kenn du fa tuur deret kenn du fa yee fitna doxin wii la sëriñ bi yeesalaat yar ci nit ñi def ko muy fondement bu jëkk ci yoonu murit lahu tubtu min ay biltifaati li xayrihi wa min nii lahu ahdu alayya damiru li wutale xalaatam ak xalaata nag moori li gën a bari ci ñi ko jëkk mooy dañoo sukkandiku ci lislaam def ko muy seen delluwaay waaye dañoo cee boole yeneen xalaat yu bàyyi ko faneen ci lu war a defaraat ak société looloo waral ñu ëpp ci ñoom seen xalaat daan lëkkaloog intérêt adduna kese kese te moo di seen njariñul bopp wala seen seenu xalaat wala mbooloo mu ñu bokk wala ngir ma dugum te loolu moo tax àdduna bi am gàllankoor ndax werante wu bari ak juyoo ci xalaat te dara warul ko luulu loolu ma wax ci loolu ci loolu la jëfandikoo xalaatu muy dullaay mu mu ëmb képp ku jëm ci yàlla. dañu tënku ci lenn lu yàlla nekkul mbaa lu wuteeg njëriñ bi mbindéef yi al muridu laa yamliku shay'an wa laa yamliku shay'un nit kooku sëriñ bi bëgg a tabax lu mu jëf ak lu mu moom ak lu mu xalaat yàllaa ko moom te dara te tënku ci lenn lu dul yàlla mbaa lu yàlla nekkul mbaa moo dafa gàllankoor ci xalaat ci xalaat diine sëriñ bi tëral la gis-gisam muy gis-gis bu yaatu boo xam ne daa boole zahir ak batin boole àdduna ak alaaxira boole njëriñu bindéef yi te mooy doomu aadama yëpp ak lépp lu ne ci kaw suuf ngir sàmmanteeg mission doomu aadama ak responsabilité am ci adduna li jub kaw ne shuruuran urbi wal udni wa sharqi bi an wal xarbi yow borom yàlla na ma def mbégteem mboolem adduna bi mu andi xam-xam lëkkale ak gëm ak liggéey ci anam boo xam ne. da ko def ay darajaat mu wax ni ba ci gën a kawe mooy xam-xam ak ngëm gu ànd ak liggéey ndax liggéey mooy tax xam-xam ak ngëm mat te loo te loolu mooy may jaam yàlla gu mat akuk texe mu wax ne liggéey ba nag ne na yàq waxtu yàq yàq waxtu nekk musiba ci aw askan xalaat yépp nag lu ci sëriñ bi wax baamu bind ko da ko gaaral sunu borom ba mu nangu ko mu gaaral ko rasuulullahi ba mu gërëm ko te yàlla du nangu jëfi benn doomu aadama su ci àdduna raxee mbaa gis ta tàbbi ci ci loolu la Sëriñ Tuubaa dikke woo ñëpp ci xeet li xeetu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam tàggaay bi xeeti njiste lépp bëgg ñu bàyyi ko kattabtu u kulli faaraqa zamba wa shirka wa xabdustara wax ne tahir kulliyati min kulli ma yuaddi ila suxtika aw xadabika aw ma yuxaalifu ridaaka anni loola waral sunu borom nangu ko jëfam jëpp te yàlla lépp lu mu nangu gërëm ko day wëlbatu bokk ci noonu yàlla ba du fi jug te dootu am fu mu yem doxeen yii la doon doxe ci mbindam ak i xalaatam moo waral ku ñuy wax Mouhamadou Khalid jàppe ko ak jagle gu Sëriñ Tuubaa jagoo ginnaaw bu ma ko boolee ci ñetti kàngami lislaam yi gën a mag ci àdduna bi te bokkul ci état bi am loolu kon li ñu ci war a dégg te jàpp ko moo di lii ñu sëriñ bi bàyyil day na sëkk ba wóoruloo jéggaani dara ndax doon na bi mu doon rasulullahi dafa firndewoo ci lu bari bokk na ca laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma xanitum xarisun alaykum bil muminina raufun rahim loolu moo di yërmande juwante bi sallallahu alayhi wa sallam amoon ci mbindeef yi di leen xoole bëtub yërmande ak cofeel sëriñ bi doon na ko ba tax mu wax ne ixfir li kulli muminin wa mumina aw shir li busharatin li safid mubina wajjih li ummati rasulillahi alayhi xayru salawatillahi te yërmaane jooju yëmutoon ci julli ji waaye ci mboolem bindee fi la rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilman faghfir lillazina taabu wa tabi'u sabilaka wa qihim azaba jahim moo tax Sëriñ Tuubaa wax ne rajawtu rahmata rabbi wa hiya wasi'atun wa rahmatullahi arjaa li min al amali yoonte yi seen seen lool yi dajaloon bañ demee ba àgg si jaaxaleem suñu borom dafa wax ne fu kullan axasna bi seen bihi fa minhum man arsalna alayhi xaasiban wa minhum man axasathu sayxa sayxa wa minhum man xasafna bihi al arda wa minhum man axraqna wa ma kaana allahu li yaslimahum walakin kaanu anfusahum yaslimun ba fa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam àggee suñu borom waxantoon da koy wax ne ko allahuma ixfir li xawmi fa innahum laa yaalamun Sëriñ Tuubaa nag ba mu àggee foofu ci bu ñu ko def ñaareelu exil ci daarul manaan dafa wax suñu borom ne ko yaa maalikal mulki yaa man jalla an xawdin irham jamii al wara yaa haadiyan raddaa moo tax benn saaxay bu ñuy wax sindi di wax ne laakin lahu xasanaatun hunna law qusimat yowma jasaa bayna ahlil ardi muxtaraqu nee na Sëriñ Tuuba ay mayam ak i jaglem suñu ko séddalee ñi ci wax suuf yëpp kenn kon kenn du natt bokk na ci ay jaglem nag lépp loo bëgg rasulullah bëgg ko lépp loo bañ bañ ko nabiyuna Mustafa xëyru war a xardi fi kulli shay'in wa ma abaahu yabaahu loolu war a sun boom tànn ko def ko dëkkaale akub xarit akub soppi ci rasulullahi malaayika yi di ko puukaroo yonte yi di ko puukaroo ak lawliyaay ak mboolem ñu baax ñi muhammadun al muxtaaru baaha bi al wara alayhi salaama xayri man jaada bil xuli baaha rasulullahi kull al anbiya alayhim wa abqa salaama rabbina bi xurbati asra sinina bi xidam xaalisatan lisal wujuudi wal qidam yaquudu li ma shitu minhum il muna wa bi yubaahi mursalina asiya bokk na ci may gi ko sunu borom may ashafaatu te moom ma mën ku ko neex wa habali xayru wara shafaa fi man ahabbahu wa jamaa bokk na ci jagle yi ko sunu borom defal waxoon na ne bu ma dikkoon lu jëkk alxuraan kon sama tur da ngeen ko ci gis wasu lu bëree bëri waaye ba nga xam ne sunu borom loolu amut. mu soppil ma ko fu ma yëkkatee sama xalima aras daal di jaayu isa katafatu tazza arshul baaqi wa sabbahat malaikatu baaqi law jiitu qabla nuzulil kitab law wujada fihi yazkur fil kitabi fulan walamma lam yakun zalika jaala ihtizaasul arshil azimi li qalami badala min zalik mu dellu wax ne sunu borom garanti na aw yoram ba ñëpp ku ñu ko bëgg ñëpp ñu ko bëgg a yàq di noonu suñu borom di noonu di ay noonam di ko añaay ak di ko fexeel seen njortu waxtu ne seen yaakaar day tas xayya ba rabbi ya sunuuna xustadi wa saana day bi kalkali wa jasadi mu wax ne sunu borom defal na ma ci mbooti xam sa sin lor dootu jëm si ci jëmmam moom loolu ko alxuraan may na ko texe goo xam ne ak texe du ca topp xedamtu bi naa abdurrika ملكتك القرآن شعاوة سعادة لا شقاوة بعدها شهد الله أنه لا إله إلا هو نانا سفر لكل شنو بورم دفن mooy mboolem luy nuur lor ak i pexe ak i yàqu-yàqu sunu borom dana ko jëmale ci kuréel jëmmam sarful mafasid na makaarihi ila xayri fi safar jëm sa si nee li ko sunu borom defal ci barakaatul xidma nag baaju mooy ci caaxaan say ko jëf sam ko xalaat doo ko yéene raaju mooy yitte ju kawe jëm ci sunu borom doo gestu lu ñu moom kaaf bi mooy fàggu ay yiw ak ci. ci yéen ak jëf taaji mooy tur gu sell ci la nga xam ci sabab ci suñu ayib ak la nga xamoon xaaji mooy gindi ko wutale àjjana allati yuhdal mu taxoon xaalidin fiha xasunat mustaqarran muqaama moo tax barakatu mënu su ko able mënu su ko maye mënu su ko jaay mënu su ko sàcc mënu su ko am ci lu ak njëkk ak topp sa ndigalu sëriñ ma jeexal nag ci li mu fàggul taalibe yi ci asraaru xurufi xasaayid yi dafa wax ne daa bindal ne aadda nii jannaati adnin tajri min taxtiha al anhaaru maahi al xijri mu wax ne suñu borom sotti ay xéewal yu bari ci loxal taalibe yi ñu tàmbali nag di ko yàqate ak di ko dugal fu wër la dugg ak di ci def la amul njariñ ak ndortu dugg leen ak xëccoo ci seen biir nee na loolu naqari ma lool ma jaaxle ci laaj ko suñu borom ba xam loolu lu ko waral suñu borom xamal ma ne yaa bindoon ci sa xasida yi ne ahaddna jannaati addin tajri moo waral xéewal yi bari ci seen biir ban ak ak ak ak njawte di leen bëgg a tàbbi nee na ma xamal ko ne ko de am naa ci jaaxal lool suñ borom xamal ma ne ma ma ne kon teema koo far suñ borom xamal ma ne boo ko faree de taalibe yi dootuñ amat lu toq lu toll ne misqaala daratin min risqi lu toll toq ci wërsëg dootuñ ko amate Sëriñ Tuubaa nee na nee na ma amul jaaxle xamoo la lu ma koy lijjantee ma laaj ko suñu borom suñu borom xamal ma ne ma def ma da soppi noon gi ak laam mu bindaan ne aadda li jannati adnin tajri min taxtiha al anhaaru maahi al xijr ne na kon danaa leen jox wërsëg ba mu doy leen tàbb bu mukk ni ñu am suñu borom ko képp ku dikk ci man ngir àndaale jàngoro yàlla nga ko saafara wa tashfi kulla man li ajli maradi lil qaada yaa man li yaqudu aradi mu ne ku ku ci man te àndaale ak réer naa ko jox xam-xam ba mu doy sëkk ba ak réer dootu ko tabbi wal tuuti wal kulla man li ajjina jahli ba maaxiyan lil jahli mu ne ku dikk ci man àndaale ak ak ñàkk naa ko defal am koom mu bari moo xam ne wërsëgam dara ba dootu soxla dara wal tuuti kulla man li ajli faqri lin qaada maalan wax mi nii an faqri mu ne ku dikk ci man ngir sàkku barke itam. na nga ko defal barke bi te barke boo xam ne dootu dog ba mukk wa tuuti kulla man li ajli baraka min xaada yaa ban kafaani mushrika mu ne nag yow suñu borom yàlla na ma defal ci ay xéewal ak ci may loo xam ne danoo fàttaloo mboolem li nga xam dama ko jaayante sama digg jaww dootuma ko jëfandikoo wa tuutini shay'an bihi ansa jamia ma baatuhu yaa xayra muhni yaa shamia wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu